na combat waay Khalil sa turando am na ko defati <laughs> ay waay ndeysaan Hercule a ngi noonu Hercule yaa ngi bëreeg mbëru caméraman yi ay waay Hercule yaa ngi bëreeg mbëru waxkat yi ndeysaan Khalil nee naa la grand promoteur mu ngi nii toog arbitre baa ngi wax ak li làmb nangu at li bañ saa nee leen saako yi fekkiwul kenn yéen a koy fekk ji waaw mi ngi wax ak ñoom ñu noon ci deuxième combat dajal nen bi toj na ko yàq na cuuj ngi laaj zizi ndax laaj na xalil ndax laaj na erki ndax pare xalil jar na taf si dënn bi kabar na ko kabar bu ànd ak julli moom xalil ak kabar kabar bu ànd ak julli waaye Hercule la ngay ñaan kon tam taf na sa ba eh, Hercule xalil la ngay la ba Hercule moo ñu wan ginnaaw xalil la njàkkaar lool saan xalil at Hercule saan xalil at Hercule Khalil méb na waaye Hercule song na ko Khalil tëru ko Hercule da kaa song na Khalil tëru saan Hercule a ngi waaye Khalil am na naax Khalil moo ñu wan ginnaaw Hercule lañ jàkkaar lool saan Khalil at Hercule Khalil moo ngeen boo ngeen bul xonq li Hercule moo ngeen boo ngeen bul waaye Khalil moo wan ginnaaw ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan ñu ne runkum daje ñoom ñaar Khalil ak Hercule Hercule sëpp na benn bëtu ëmb saan daw jàppun ràcc ndengeñ lamin saan ñaari xale yaa ngi noonu nga dajale moom Hercule arbitre atte na leen ñu xool lu xew ñu xool xool lu xew xool lu xew daa mel ni protestant bi la yàbbi woon gannaaw arbitre nee na ko avertissement Khalil waaw protestant bi at bi sifle waat na Khalil at Hercule ñuul ngeen bulu bulali Khalil moo ngeen moo ngeen bulu ñaar Khalil la Hercule la ngi toog sa kaw waaye Khalil la ngi arrière Hercule at Khalil daan ndengeñ ràcc kil jàpp na sa élastique ar bi nee ngeen bëre Khalil dajale saan Hercule ak Khalil saan dégal na bu yaa daan Hercule eh, caxabal na Khalil jéggi ko Hercule laat saan nga xoolee taxawalaat na ko moom moom Hercule Khalil jéggi ko Khalil laat Hercule ndeysaan ñaar xale yaa ngi noonu Khalil laat Hercule arbitre nee na ngeen bëre ndeysaan ñaar xale yaa ngi noonu Khalil a ngi dóor Khalil a ñaar xale yaa ngi noonu saan Père Mass ñaari xale yaa ngi Xalil Xalil eh, eh, fan la yegg Xalil fan la yegg ah Xalil fan la eh, yegg war nañu Xalil domba Xalil war nañu domba Xalil ñu ay waay war na kan appi ay waay daal na Xalil waay ba daan naa sa Xalil caméraman ba waay waay ay ah, waay daan na Xalil ba daan naa sa caméraman ba Hercule daan na ko oh Khalil jógal garaawut daan Khalil jógal sa turandoo filmé na la wasoon waaye da kaa daanu.